maa ngi tudd Abdou mbay Mbaye di président collectif solution site Ndiakhate Amar sunu organisation bi nag daanaka ëpp nañ mat nañ junni lotissement bu Ndiakhate Amar bi nag ci laa bëgg a wax ñoo ngi ko def 2008 ki ko def ab géomètre bu agréé la bu tudd Alpha Mané jamono jooju nag Mamadou Diakhaté moo newoon président bu communauté communauté rurale bu serif Lo ginnaaw bi mu déggoog borom tool yi nga xamante ne ñoo ne ci village Ndiakhate Amar ak li ko wër monsieur Ousmane saar bi mu fi ñëwee nekk fi maire 2018 ginnaaw bi fi ay moromam jaaree ay maire diggante 2008 ba 2010 kenn ba 2018 kenn andiwu fi problème moom mu ñëw ne dafay andi plan bu bees boo xamante daal ci ay waxam nee na moom dañ ko ko autoriser boobu moo valable te loolu it ñun dañ koo lànk ba tëdd ci suuf duñ ko nangu ndax boo ñëwee fii xam ni fii yëpp nit ñi tabax nañ ko ba dëkk fi wala ñoo xamante ni seeni construction mu ngi en cours mu ne def plan ñu bañ ko ba tëdd ci suuf ci kaw loolu nag moom ci wàllu boppam chaque jour dafiy woo loolu ñu naan d'escorte benn brigade gendarmerie la bu nekk Mbour ñu ñuy téye jàpp nañu sax suñuy ñoñ ba tëj leen loolu it lu lànk la 2021 nag bi mu ñëwee ñun am na ay waxtaan yu def ak kilifa diine yi ci dëkk bi ak le sous-préfet bu bu Pambal monsieur Ndong dem na retraite ak moom ñu daal di monter benn équipe technique pour waxtaan nu ñuy saafara loolu parce que dem nañ ba xam ni mi defaat fii lotissement ci kaw lotissement du yoon jaaduwul ndax lotissement ci lu ñu xam ñun dañ koy def ci ab àll wala ci ay tool mais foo xamante ni am nay kër mbaa nit ñi dëkk mbaa nit ñi tabax lotissement mënut a faa am ñu ne nag dañuy régulariser régularisation boobu nag dañ ci waxtaan ak le maire Chérif Lo moom ak sous préfet bi ak chef urbanisme bi fi newoon Banda mbay ak kilifa yi nga xamante ni ñoo ne ci village chef de village ak imam yi ñu wut ñu waxtaan ci ba ni dañuy régulariser def nañu recensement yi laaj ñu suñuy këyit parcelles yi nga xamante ni amoon nañ ko ca du Jaxate jël numéro yi dugg ci terrain bi identifier ku nekk ñu xool numéro bi nga xam ndax méngoo naag parcelle euh, plan bi ñu yor ba lépp ne cocc ginnaaw gi ñu teg loolu lépp ci suuf li ko dindi nag kenn xamu ko ba léegi mënuñu la ko wax fi mu ne nii toll nii suñu problème mooy délimitation entre commune Chérif Lo ak Tivaouane lañ xamul maanaam ñaari gox yi fan lañu dugalante ak ku ci ne fa nga yem coow loolu nag jur na fi lu ne ba na ci suñu sukkandikoo ci kàddu yi président commune commission domaniale bu Tivaouane dañuy wax ni ñoom am na ak pàcc goo xamante ni Tivaouane am na ko fi ba quartier boobu tudd na Balxaw mi ma préciser ko Balxaw mi nekk na quartier boo xamante ni du du du ci sous de Diop si sax la fi am mais Diagne si Meng moo ko njëkk a tuddee bi ñuy ñëwee équipe bu Diop bi dëggal loolu commencé di fi joxe ay mutation waaye Chérif Lo dafa lànk lool nee na pepp suuf Tivaouane amu ko fi te même bu la Tivaouane joxe mutation mbaa mu jox la autorisation de construire ba ci këyitu domaine boo fi tegee brique mu woo des ko jàpp la loolu nag def ñun ay njàqare ak ay coona yoo xamante ni yu doye doye waar la boo xoolee soo demee Tivaouane ñaari commune yëpp ñu ngi joxe fi ay sit ay ay mutation muy Chérif Lo ak Tivaouane léegi nag tiwaan pour nga am fa mutation dañ naan la da ngay am acte de propriété boo xamante ni ki la koy délivrer moom mooy chef de quartier balxaw mi fi ñu naan ñoom foofu ñoo ko moom. nga dem mairie ñu jox la ordre de recette nga dem fay ñaar fukki junni trésor public fay trésor bu dee shérif loola ñoom dañ lay wax ñeent fukki junni ak ñaar moom ngay jox ku ñu tuddee cheikh jiite koo xamante ni liggéeyul sax ci mairie bi. xamuñu lu mu seq ak commune bi bañ ko war a jox loolu am na sax ci ñun ñu naan boo ko joxee xaalis bi danaan la téye ko jox ma sa photocopie ak sa numéro parcelle ñu enregistré ci mairie bi sa tur la ñuy bind ci registre bi bu sa kayit génnee nga ñëw joxe ko ñu ngi ñaaw lool nag façon boobu ñuy joxe xaalis boobu ñu ngi koy ñaawloo ko ku ne xam ne xaalis bu jugee ci commune wala ay tribunal yu mel noonu dafa am benn bërëb liggéeykaay bu ñu tuddee trésor fa la xaalis ba war a jaar ndax mooy recouvrir bépp recette boo xamante ni ataa moo ko moom noonu koy defee nag ñaawlu nañ ko loola lool deux cent dix mille itam nekk xaalis bu takkoo takkoo takkoo boo xamante ni ñun ñëpp ñaawlu nañ ko te nañ benn ne duñ ko fay tey duñ ko fay ëllëg ci mutation coono gi ñuy daj fii yëpp nag liñ ci gën a naqari ak coono ñu fi daj ñooy tekk tekkaaru lu meeru Tivaouane Demba Diop Sy ndax jàpp nañ moom dayoom ak taxawaayam ci réew mi ak ni mu xamee suuf bu communam am di délivrer ay mutation ci doomu Tivaouane ci site bi beneen commune taxaw ne ñoom bokkuñu fi te duñ fi mën a tabax moom waroon na ci am beneen taxawaay bu dul tekk tekkaaral ñu ko ciy woon nag mu jël ci ay matuwaayam pour que ñi muy jox kayit fii xam fi ñu bokk ñu mën a délimiter Tivaouane ak Chérif Lo ñu ngi wootam seen kilifa muy le préfet de Tivaouane bi nga xamante ni moom mooy yilif maire Chérif Lo mooy yilif maire Tivaouane mooy yilif tam su préfet bu Pembal Pambal mu jóg ci wax ci pour ñu mën a saafara mbir mi def délimitation bi ñaari gox yi ku ne xam fa nga tàmbalee ak fa nga yem su ko defee ñun ñi nga xamante ni am nañ fi ay terrain xam ci ban gox la ñuy mën a dem waxtaan fa pour am ay kayit yu wér te wóor loolu daal moo neewoon ndaje mi tey ñu ngi leen sant di leen gërëm. leneen li ñu bëgg a xam mooy groupe xam ne dañoo fayee Chérif Lo am ñoo xam ne waaw ndax Chérif am na loolu am na am na ñoo xamante ni bi bi décret bi génnee ñu xool ko xam ni Tivaouane nañ bokk commencé nañoo fay Tivaouane te Tivaouane nangu na loolu bu ngi leen délivré waa Chérif Lo tam ñoom dañu ne gannaaw mënatuñoo def seen plan fii léegi ñoom plan bi ñu yor bu bees bi buñ ko xoolee ak plan yow bi nga nekkoon seen numéro bu fa muy fa muy féete maanaam fi muy situé wu bu fekkee seen plan bi numéro ba correspond na foofu na nga ñëw fay deux cent dix mille ñu daal lay jox kayitu bàyyi kayit boo xamante ne domaine lay jugee loolu commencé na am am na ñoo xamante ne je rappelle ñu ngi ci gox bi am fi ay kër te ñu ñun suñu organisation ñoo ñee ñu ngay dem di fay